Bamba may ko tuuti Bamba. Bamba Bamba téléphone may ko may ko kii may ko may ko may ko may ko kii may ko may ko kii am na solo ñun ñu ne suñu bopp yeewu askan wi ñu ñëpp seen njaboot nga xam ne dañoo gis ne Sénégal yàlla na koo may loo xam ne lu bëri mayu ko réew yu bëri te réew yooyu jiitu bu dee ci mag baax ak seen ndono am na ñoo xam ne yore ëpp sa junni yoon bu dee xam-xam mel ne am na loo xam ne askan bi dafa xaw a fas jàmm ak salaam ñu xalaat suñu gis-gis mais war nañoo lañ lañ loolu dafa tënk ñu ci ba jatal ko ñu jatal ko dafa si askan bi ñu fekkee ko ngir réew mi jaabal ba mën a ko ñu bëgg na nga ñaanal ci ba ñaanal ñu ci ndax def ko suñu ñu def ko suñu ceeb bu ngeen ko bëggee ba mu nekk mbégte ci yéen ci suñu maam Cheikh Ibrahima. ko jeexalee dañ ñoo jàngal dañuy dégg nga naan dem nga dem ak yow nga ma ne moom sax xam naa dañu ko war a may ñu def ko. wax boobu rek jàngal lu bëri Sénégal kan mooy sëñ ndaxte yéen a ñu jàngale sëñ bi bu ñuy dem yàqam ci woon naa dem kenn gunge wu. bi muy ñi ko doon indi yàqam dina indi. jàng ci loolu maa ngi ne ci biir. jërëjëf mbokk taalibe yi sëriñ bi nekkoon na jërëjëf sëriñ Habib Sy dégg na kàddu yi nga xam ne sëriñ Habib yëkkati na ko nekk kàddu moo xam ne moo ci problème mu nekk kàddu yi sëriñ bi nee na rafetlu na ko lool mu ne dégg na it maanaam bu baax a baax mu ne yëg na ko bu baax a baax mu ne soññi na na bi mu ne ci lépp lu jëm ci lu baax mu ne kon bala ñoo wax dara dañuy gën a sant ci kàddu yi nga xam ne sëriñ Habib si yëkkati na ko mu ne dégg na ko bu baax a baax dafa wax ma def sëriñ bi nee na ñu ngi lay yu baax yi nga mu ne dinañ gàttandu ak cant ak ngërëm. mu ne xam nañ yitte ji leen yëkkati ak jéego yi ngen def ak jotaay bii mu ne xam na ko bu baax mu ne ak cant gu rek cant gu rek mooy jóge ci moom. mu ne da ngeen koo defal loo xam ne mu ne dootu ko fàtte mukk mu a daf leen a woo lu baax woo leen ci jàmm woo leen ci yitte ngeen wuyu ko ci mu ne wuyin mu rafet muy dëgg ci yéen mu ne loolu dootu ko fàtte fàtte mukk mu ne waaye xam ne loolu mu ne da xam ne loolee bor bu leen ameel la moom mu ne waxul sax yéene ju ji mu ne yéene ju rafet ji nga xam moom nga fekk waaye loolu daf ko jàppee bor bor bu rëy bu mu leen amee mu ne bor boo xam ne boo boo mu ne diisu ko kenn mu ne kudul suñ borom mi dafa ko dindi ci barke Serigne Touba mu ne loolu rek la ciy ñaan. mu ne bor bi ñu leen ameel ñaan ci barke Serigne Touba bu yam yàlla def nañu tawfeex ba mën na ko fay mu ne loolu rek la jërë ngeen jox nee la mi ngi sant bu baax baax mu ne xolam sedd na mu ne xelam dal na mu ne yaakaar mi dolleeku na mu ne jërë ngeen jëf mu ne mi ngi leen ñaanal yéen ñëpp nag yàlla mi dafa ko dindi

na ngeen xam ne fii ak nii Nday mi ngi koy ànd ak yéen incha allah mu ne li ci kenn kàttanam mu ne dana ko jëfe mu ne loolu ab dig la loolu incha allah ci loolu rek lay nekk sama digganteem ak yéen jërë ngeen jëf. Thank you.

கொஞ்சம் இப்படி So, someone, someone give me. Ah, ah, sing the sing the sing the Huh? hey. đúng Winter. Yes. No, no, no. Hard. No.